ñàkku liggéey la kuréel gi ñu duppee synergie de syndicats et travailleurs du Sénégal naka noonu association bi ëmb commerçant ak industriel du Sénégal daal di fas yéene amal ci talaata ji lee ñaari mbootaay yi lee moo di la bépp secteur bu économie ci gën kaa néew benn fan. mooy talaata ji dañoo décider ni Sénégal dañuy def li ñuy wax ville morte mooy képp koo xam ni am na ci liggéey wala ci looy nekk rek. nga banque sa loxo pour wane ni kontaanoo dinañ banque suñuy loxo mais xam nga santé dafa nekk lu ba dinañ assurer urgence mais programme opératoire yi nga xam ni defoon nañ ko ci yenn structures yi wax nañ gars yi ñu différer ko. jaaree ko ci gréew bi ni mel syndicaliste yi la ñuy xaar ci njiitu réew mi mooy mu amal élection présidentielle laata mandat am di jeex. askan wi li muy sàkku mooy décision bii conseil constitutionnel génn te mooy organiser l'élection yi balaa le 2 avril sa mandat 2 avril la yem nga joxe léegi yi ñu jël keneen teg ko ci suñ kanam loolu lañ lay woo askan wi ci la lay woo. constitution moo limité mandat président de la république ni fii lay commencé fii lay yem conseil constitutionnel benn wax la am jàppal ma bis jàpp bis daf ci soxla waxtaan ay dialogue lu ñuy dialogue ñu ànd kook plateforme bi ñu duppee aar suñu élection organisation yi bokk ci société civile di woo bépp acteur bu nekk ci wàllum wér-gu-yaram njàng meek njàngale mi njaay mi télécommunication transport ngir ñu topp moo door de grève bile loole ngir fësal seen ñàkk ànd ci li ñu tuddee ab coup d'état constitutionnel